mooy yenn yi du yëpp kon yi nga xam ni vraiment duñ ko def appel en candidature yooyu lañ génne donc l'un exclut l'autre bu fekkoon dañu spécifier wax ni telle direction telle direction telle direction ñu mën a wax mais aujourd'hui on a pas on a di certains loolu mooy yenn yi dinañ leen def ak candidature te loolu di ngeen ko gis même bu doon ñaar ñett certain la bu ñu gañee nag dañu war a gouverner bu ñu waree gouverner suñu ay nit la ñuy teg pour ñu gouverner loolu c'est extrêmement et puis euh, def benn promesse électorale ñëw euh, jël ka sànni fale pour améliorer les conditions n'est-ce pas de vie des population loolu du du du du gàcce loolu defe naa l'essentiel rek moo ñu fexe ba li ñu diggee askan bi ñu sàmm xam ne appel à candidature du bare man je souhaite que mu bañ a bari parce que moi je veux qu'on gouverne véritablement avec nos gens parce que képp ku gagné te ay nit ngay gouverne